oustaz euh, mu ngi euh, wax ni jëkkër ji daf ko fase mu bëgg jàpp idda ci kër gi jëkkër ji bañ jërëjëf alaaji pap loolu de moom la lislaam santaane woon hmm. bu fekkee ñu ngi pratiquer lislaam hmm. dañoo bëggoon bu ñu la mayee sa baat hmm. nga bañ a ñibbi toog ci kër gi jàpp fi idda ba idda bi jeex mais te préavis <laughs> loolu xew ci entreprise yi man ni su ma doon bàyyi damay jël idda ci télé bi toog fi quelques mois pare dem kon noonu la ko yàlla bëggee ci sëy itam buñ la fasee mën nga toog ci sa kër borom kër. yàlla nee na ba idda bi jeex. suñ leen fasee toog leen ci kër gi bu leen génn. jàppee leen idda ci biir kër gi. waaye léegi fasu fase bu jibee rek noo noo noo taxaw bu fekkee da ngeen a xuloo. ba du ngeen tuddante. Mhm. yàlla nee na toogal ci kër gi ñetti weer. Mhm. ndax mën na am mu changer avis. politique lislaam la parce que l'islam bëggul tàqali ko. Mhm. yàlla day defar. dafa bëgg ñaar ñi ànd bu ñu xasee sos ànd bi rek ñu continuer. Mhm, mhm, bu tax ñii di xërëm sëy yi ak di leen liggéey pour ñu tas amel nañ amel nañ amel amel nañ seeni borom àq de alaaji Pape. Mm, mm, mm, la gënoon ci lislaam mooy nga toog ci kër gi jàppee idda ci biir kër gi ba idda bi jeex. mais yàlla dina àtte. su idda bi jeexee. ko ay la yéwén maa ngi dem. idda bi jeex na. boobu ba léegi kat l'islam moo ñu mayoon prolongation bii. pour ñu xool ndax dañuy dellu si waat wala dañuy continuer. comme d'accord maa ngi dem ñaanal ma. oh mais loolu est-ce que am na am na jigéen ñu mel. noonu lii l'islam santaane. oui mais waaw quand même loolu l'islam santaane nga tàllal sa jëkkër ni la. yàllaa ko jeexal mu jeex te yàlla mi ko jeexal moo daganal tas ndax fa imsaakun bi maarufin aw tasrixun bi ixsaan yàlla nee na su ngeen mënta ànd ci àndin bu rafet na ku ne seeti moroomam maa ngi lay ñaanal nag yàlla nga am jëkkër ju ma gën mais sëy yàqu léegi ay xeex ak xuloog saaga la de parce que dañoo wàcc raay bi maa ngi dem de <laughs> moom balaa ngay ñaan bay dem lañ lay bule man damay damay jël saaki ak say wëris tëmbal ko troisième étage sànni pel nga daal yi te kaj non non non je suis gentleman je te maison non non non jusque maslaa bi dafa am solo mais idda jigéen bi mën na koo def ci biir kër gi donte jëkkër ji may na koo baatam dañ ne la nga toog ci biir kër gi ok ok mais léegi tension bi ak bañante bi mooy àgg foo xam ni bu ñu la mayee baat doo bëgg fanaan waxuma la ñàkk fanaan sax mhm. mais seen kër ku fay xale bu góor dina ñëw ci guddi gi roñ si bagage yi caat mi mujjee judd nekk sa rakk nga xam ne dëgëragul. Mhm. mooy wàccee kaas yu oyof yi. ak nijaay ji naan la prêter bagage. la France. ça je me connais. <laughs> ñii naan Ablaye mu ndaw. Mhm. wàcceel kaas bi. prêter bagage. caat mi gën a tuuti day wàccee bagage. <laughs> prêter bagage. taw bu dëgër bi nga xam ne histoire rek la bëgg. mooy jël gaz bu dis bi léegi nag yow góor bi. bu dee da nga am ay rakk yu mel ni maman Aliette sama rakk yi ay kooba lañu. ñoom dañuy dugg ci xeex bi. xala am na ñoom rideau yi duñ ko dindi normal dañuy accident. jigéen juñ fase te doyulul ci sëy bi briquet du ko fa bàyyi. déedéet dañuy roñ lépp ñëw ci waañu ne kiy togg briquet bi <laughs> briquet bi si te plaît maa ko jëndoon. <laughs> pap am na loolu jërte jërte wekki wallaay jërte wekki jërte wekki moo tax lislaam bëggoon nga toog ci kër gi mhm. jàppee idda ci biir kër gi day mel ni préavis rek parce que dafa bëgg mhm. ku góor ki mën naa mu jekki-jekki rek ndeysaan changer avis mhm. ñëw ni la nañ juboo loolu la l'islam bëgg mais ça pas dire que bàkkaar la bu ko góor ki nanguwul l'islam dafa bëgg euh, loolu rek jigéen ki toog ci idda bi ci biir kër gi garaawul quoi li ko concerne rek pap même boo mënta toog ci kër gi na tàqalikoo bi rafet na ku nekk di wax ci moroomam lu rafet ñaar ñu doon sëy ba tas mel ni Iran Irak buñ daje duñ nuyonte yàqante der bi kii yéen a ko xamul mais man mi ko xam bu ma la ko jàppaloon nga bàyyi àddina waxoo dëgg waxoo dëgg xamoo dara li ngay xam lépp da nga sos parce que xamoon nga ko ci moom te teewul toog nga ba mu yàgg envoyé ko message ni ko papa je t'aime tii ma manque manque démb tey tii ma soof fan la am ñaari wax bu wuutee ci même at am na lu xew wallaay am na lu xew am na lu xew yàlla na yàlla dëgëral diggante yëpp ñii sëy yàlla na suñu borom sàmm leen euh, sàmmal leen seen i seen i sëy et yàlla bàyyi ñoog ñi gën ci ñun ñu ngi mille 2023 euh, ku nekk na xool rek euh, bu ko defee suñu morom suñu borom mën a taxaw nit ñi ci seeni diggante ñu jàll ci deuxième question boo xamante ni dañ ñu ko yónnee ci hashtag bi di Midi Plus yaa oustaz ba tey ci